problème est lié euh, à, à l'approvisionnement en eau potable à En effet, depuis trois mois, les populations n'ont pas reçu de facture pour euh, la consommation d'eau. Et ceci est dû à la privatisation initiée par les réformes que l'État du Sénégal a pris, notamment avec son ministère de l'hydraulique. En effet, l'État du Sénégal avait consenti un investissement de 20 milliards pour la question liée à l'eau potable. Et c'était l'objectif d'abréger les souffrances des Sénégalais. Mais aujourd'hui, on voit tout le contraire. Avec les réformes que l'État du Sénégal vient imposer aux populations, le mètre cube d'eau passe de 200 francs à 275 francs pour une consommation de 10 cubes. Et c'est par tranche jusqu'à 700 francs le mètre cube, ce que les populations ne peuvent pas accepter. Raison pour laquelle toute les, la population s'est réunie aujourd'hui pour manifester leur désarroi lié à cette injustice que nous voulons manifester devant toutes les autorités compétentes pour réparer cette injustice afin que les populations soient rétablies dans leurs droits. Mais c'est tout à fait une contradiction que l'eau puisse émaner ici dans la commune de Tasset plus faire dans toute l'étendue du territoire, ce n'est pas acceptable. Un mètre cube d'eau qui peut aller jusqu'à 700 francs, ça n'existe nulle part dans le pays. Et pourtant, l'eau existe en abondance dans notre localité. Ce n'est pas tout acceptable. Nous avons saisi toutes les autorités compétentes. Nous commençons d'abord par le sous-préfet. Nous lui avons envoyé deux communiqués en lui faisant savoir l'état des lieux et le problème à Tasset. Mais jusqu'à présent, il nous a signifié que le problème des réformes est bien entré en vigueur, mais l'exploitation de l'eau à Tasset n'a pas été, on lui a pas euh, convié, en tout cas euh, pour ce qui concerne la, le, le, problème de l'exploitation de l'eau à Tasset. Raison pour laquelle il n'a pas assez, elle n'a pas assez d'informations pour tirer conclusion qui s'impose. Nous avons soulevé le problème devant le ministre de tutelle. Il nous avait promis que l'eau, au lieu d'être beaucoup plus, au lieu d'augmenter le prix, le prix devrait être euh, revu à la baisse et que les emplois seraient issus de la commune de Tassette. Mais aujourd'hui, ce que, nous, ce que l'on constate, c'est qu'une hausse faramineuse des prix et que tous les, les, les, les agents qui, qui, qui, qui, sont issus de, de, de la commune de Tassette sont tous, ont tous vu leur emploi donc, euh, suspendu. Il n'y a, pas un seul fils de Tassette qui, a un, un, un contrat dans, dans l'exploitation de l'eau. ce qui n'est pas du tout acceptable encore une fois. Nous réclamons justice. Et mieux, ce qui est beaucoup plus grave, c'est notre forage qui nous est propriété exclusive de Tasset, qui risque d'être engloutie dans cette exploitation que l'on confie à un privé. Tasset dispose d'un forage en bonne et due forme qui, qui, qui, fonctionne correctement, qui vend le mètre cube à francs. Aujourd'hui, ils veulent nous, imposer un prix jusqu'à francs. Ça, on ne saurait l'accepter. ngi tudd Maymuna Baro dëkk Tassette. waaw très bien jafe-jafe yi defe naa ñun jigéen ñi ñoo ko gën a yëkk parce que déjà bu ñu amee problème mu dépense marché bi cher lool ñu bëgg ñoo teg facture yoo xam ne nii mënuñu koo fay c'est exorbitant loolu jaaduwul te ñun ñu ngi doon fay déjà mètre cube bu 200 francs mu indil ñu problème ndax dëkk bi neexul mbey mi doxul xale yi liggéeyuñu bu ñu fayee ko mètre cube bu 200 francs ñu tëggoo fay tey ñu ñuy yóbbu mètre cube bu jusqu'à 700 francs te xam nañ ne monde rural lañ ne ay maison yu ngand doo nga fi ne dépassé 10 mètres cubes c'est très facile nga bëgg a dem ba 700 francs par mètre cube dinañ la indil facture 300000 et plus te doo ko mën a fay ñun jigéen ñi amuñu teen bu ñu roote bu robinet tëjee mën nañoo dem ba beneen village te temps yi dañuy dañoo constaté ne que ne dindi nañu suñu tuyau branché ko ci njoos mon bi arrangé wuñu arrangé wuñu déjà robinet mu ngi tëj facture yi yokku na bu robinet tëjee fii doo am fooroote ji da ngay dem village ba village door a ñëw togg añ arrangé wuñ ñu jigéen te man directeur OFOR moo wax gémmiñam sama nopp nono non rajo benn rajo de la place vers 11h jour samedi mu ne ndox mi buñ ko wàññiwul du mas a yokku kon nag lan moo tax ñu di ko yokku te sama tiitaange du lool de dëkku kaw village boo ne yow réseau réseau agriculture réseau élevage yokku ndox mi nit ñi duñu am luñ naan kon xanaa mooy village boobu nañ dee. ñëpp nañ dee duñu béy duñu naan duñu duñu sàmm loolu loolu loolu loolu kon moom fi esclavage bi ñu bi ñu dàqoon day bëgg a ñëwaat te loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñun jigéen ñi taset yëpp kenn ko nangu ànd ak góor ñi bañuñu ko nag ba fenn autorité compétente dem nañ wax ak ñoom wax na ñoo autorité compétente yi ñu ngi toog di déglu woote nañu réunion mardi ñu ngi toog di leen xaar robinet tey dafa xëy tëj dégg naa ay rumeur ñu ne dina tëj trois loolu duñ ko nangu. duñ ko nangu mosu fi am. duñ ko nangu duñ ci nag dara waaw merci.